in tuuba xaada lahullahu maxtaara la mas naa woo Cheikh Ibra Fall radiallahu taala anhu ne na waaye du loolu laa lay doyee ana lu lay doyee boole aji bind ji ngeen doon kenn dañu ko jottalee Cheikh Ibra Fall mu ne loolu neex na di sëriñ bi ne loolu laay def